jërë ngeen jëf mbokk internet bpactu point comme ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal te ñëwaat ak yéen ci seen yeneen i xibaaru Actunet comme ni ñu amee habitude di ci ànd a yéen saa su nekk ci seen xibaar yi gën a fës euh, ci réseaux sociaux yi dañ koy daal di ubbee rek ak ki nga xamante ni moom moo di docteur Niang Moussa mi euh, gis nañu nag kàddu yi nga xamante ni yëkkati woon na ko te ko ci ndoddal ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf mu ne woon Abdoulaye Diouf Sarr day jël ay matériel yoo xamante ne CTI yi ñoo ko moom euh, di ko jaay ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci privé yi mu nekk kàddu yoo xamante ni nag tax na suñu njiitum santé daal di koy porter plainte mu demoon wuyu ji démb diwaanu gendarmerie audition boo xamante ne jëloon na temps lool ci journée bi ba ay 22 heures ci guddi waaye gis nañ ne moom docteur Niang indiwul benn preuve à l'appui buy wane que ni li muy avancé am na fu leer fu mu ko teg lu dul euh, yenn révélation yi nga xamante ni moom la def foofu ba ca jiitu nee na Abdoulaye Diouf Sarr euh, li nga xamante ni moom la ko tuumaal euh, mi nga ko déggee ci beneen nit boo xamante ni ci nguur gi la nekk deuxièmement li nga xamante ni moom la wax nee na fële na la ci diwaanu kër sëñ bi la koy jaayee ndax am na koo xamante ne jaayoon na ko matériel mais ba ñu woowee kooku dani moom matériel la ma ngi koy jëndee ci diwaanu Chine donc mën nañoo tënk ni bi wane que ni euh, kàddu yi mu yëkkati di ko jëmmale ci Abdoulaye Diouf Sarr lu wér la. ñu daal di wël suñuy xibaar ci mbirum Dieynaba Traoré mu ñu faatoon bakkanam fële ne la ci diwaanu Filaawo ya nekk ca diwaanu eh, Tivaouane Peulh mu nekk ab mystère boo xamante ne nag ba suñu joon yàlla tey jii amaguñ ci lumière boobaak léegi takk der yi ñoo ngi wéyal di amal seen enquête waaye ginnaaw ba ñu faatee bakkanu Laba Ndiaye ci anam yoo xamante ni sénégalais yëpp gis nañ ko ak révélation yi nga xamante ni moom la féticheur bi def amido Sidibé eh, tax na nag ay mbokki eh, Dieynaba Traoré daal di defaat ab sortie rek di Euh, ñoo ngi exiger ñu def lumière na mu gën a gaawe ci enquête bi ndax bu dara dul dara euh, Dieynaba Traoré lañ ñu koon a fàtt bakkanam jamono ji euh, tànk xamuñu ki nga xamante ni moom moo nekk ci ginnaaw motul boobee nañ jàpp ni mënatuñoo lekk ba suur mënatuñoo naan ba màndi loolu dong la ñu bëgg que justice soit faite ñu xam bu dul dara sax ki nga xamante ni moom moo faat bakkanu seen doom ji bu ko defee ñu daal di ñëw ak yéen ci coow bi nga xamante ni moom la Amdy Mignon sekkoon ak Omoro ci plateau bu 2STV ba nekk coow boo xamante ni nag sénégalais yi ci bari rafetlu wuñ ko ndax jàpp nañ ni bu dara dara c'est pas professionnel nga toog ci tere wala wax loo xamante ni day jëmale askan bi kanam wala nga war a divertir askan bi ñu nekk ci seen jàmm seen stress daal di wàcc ngeen nekk ci télé ay en tant que ay animateur di xeex looloo waral suñu benn naataango dem seeti Amdy Mignon waxtaanaat ak moom ci li nga xamante di xew-xew bi waaye nag amul lenn lu mu ci tontu lu dul Omaro dafa nekk nit boo xamante ni nit wu ngistal la lépp lu mu def rek day bëgg di ko wane saa su nekk nee na dafa toog ci plateau bi ñuy waajal tournée émission mu ñëw ci moom di ko wan ay image nan ko euh, am di mi ñoo xoolal mu ni ko lan lay xool mu wan ko ci benn gétt xar bu mu nekkoon ni ko tey dama doon may ay xar yu bari gis nga femme bi toog ak euh, doomam ak sëtam Euh, bokk nañ ci ñi nga xamante ne ñoom laa doon may xar moom nag dafa jàpp ni booy def te yàlla tax soxla woo ngis tal booy def te yàlla tax taxul nga war a mën a toog ci télé bi di ko wax waaye beneen bi ci topp nga xamante ni nag moom la gën a ñaaw lu ci jikko Omaro du lenn lu dul dee utiliser euh, télé bu 2STV pour def euh, li nga xamante ni moom moo di ay sàmbay mayaanam nee na ba mu dalee feeñ tele ba suñu yoonu yàlla tey jii amul kenn ku mës a toog ni am di million day toog ci tele bi du ma tudd pour que su ma gisee ma daal di koy bokkal euh, ci nànk kenn bañ koo yëg moom nag jàpp na ni Omaro noonu lay liggéeyee day toog ci tele bi seen. temps bi ñu war a defee émission bi nekk lu gàtt lool mu nekk di fi tudd ay borom dara ñoo xamante ni dañoo am xaalis pour que bu émission bi jeexee mu mën a am lu mu am ci ñoom maanaam daal business la jàppee li nga xamante ni moom moo di 2STV teg ki tamit nitu ngistal la te moom bëggul kuy ngistal ndax am na sujet yu ëpp importance euh, ci Sénégal yu ñu war a tuddoo ba ci jiitu bokk na ci corona bi euh, beneen bi gis nañu jamono gi ni euh, taw bi daal dinay tàmbali ci dakaar ak inondation yi faral di am ci réew mi lu ko wër ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni sujet d'actualité la jàpp na moom moo waroon a occuper seen ci antenne bi. ñu ñëw ci Astar Astar nag ñu gën koo ràññee ci wàll wàllum musique bi muy faral di ci wane boppam lool donte sax gone la. ren nag mu doon passé li nga xamante ni moom moo di baccalauréat bi ñu daan ni Astar daal di ne publier euh, ci réseaux sociaux yëpp que ni am na mention très bien ci euh, baccalauréat bu ren bi waaye loolee nag waa Sénégal dañ koo daal di weddi ba mu set wecc nee ñu am na bac certes waaye nag passable la ko amee en tout cas am na ko wala amu ko am na ko loolu mooy alhamdulilah di ko félicité bu baax a baax a baax ndax carrière musicale ak ay études nekkul lu yomb boo ko defee ñu daal di ñëw ak yéen ci ba tey li nga xamante ni moom lañu docteur ñaa def maanaam kàddu yu mu yëkkati woon di ko jëmale ci euh, Abdoulaye Diouf ay Aïssatou Diop faal nag rafetlu ko benn yoon nee na en tant que docteur boo xamante ni da réputé am sa diplôme ñëpp yaakaar ci yow maanaam daal nga nekk ci wàllum santé leen benn objectif nga waroon am mooy xool naka la maladie di def ba wér li nga xamante moom mooy jàngoro coronavirus ak leneen lu ni mel waaye en tant que docteur nga toog di yëkk ci ay kàddu yoo xamante ni mën naa tukkal Sénégal wala mu tukkal jamono en tout cas daal nañ jàpp ne Aïssatou Diop Fall moom dal na bu baax ci kaw ki nga xamante ni moom moo di docteur Niang ci émission bu TFM bi bu ko defee ñu daal di ñëw ak yéen ci coowal kilifa kilifa nag gis nañu coow bi ko topp jamono ji dara waralu ko nag lu dul vidéo boo xamante ni waa leeral ñoom ñoo ko publié woon ba xamante ne mi ngi toog ak benn xaritam bu ñuy woowee Cerno ci oto bi ñuy waxtaanee business ñoom ñaar ay millions daal di fay génne lu toll ci deux jàpp trois ba quatre million yooyu ñoo ngi ko doon waxtaanee vidéo ba nag daal di ne véhiculé ñu bari daal di koy partagé ñu naan kii nii di kilifa day def trafic de foo bi maanaam daal day mubboo li nga xamante ni moom moo di euh, métier musicien bi euh, di mm, dimbali ay nit pour ñu daal di am visa cooba ba yemul foofu def na ab sort doon ci joxe ay leeral gën business boobee du business euh, lu dul ay oto yoo xamante ni day faral di ko jënd di ko jaayaat waaye kii nii di xaritam boobu nga xamante ni ami l'enfance am la Euh, di nga ko topp ba mu sës nag mu wax euh, lan moo tax ak lan moo waral mu daal di koy vidéo génne ko euh, daal dina yëkkati baaraamu tuuma tamit daal di koy teg ci télé bu leeral TV mën nañu dafa noppi rek ñu daal di gisaat beneen vidéo boo xamante ni leeral TV ñoo ko publier ñu ciy gis kilifa ba tey ak xaritam boobee nekk ci oto bi ñu koy filmer à son insu di wane ni moom tamit nag mi ngi am lenn lu muy sekk ak xaritam bi en tout cas li wér te wóor mooy daal dina ci raxasu ba set wecc mi ngi yëgle ne euh, business boobu business oto la woon waaye kii ni di imam Makhtar euh, Kanté def na ab euh, sortie ci page Facebook am di wax kilifa xale nga donc dinaa la jox ñetti conseil yoo xamante ni boo ko defee rek mbir mi dina leer bu soobee yàlla ba ci jiitu mooy nga daal di bàyyi di communiquer ak média yi ci li nga xamante ni moom moo di coowal faux passeport yooyee ak passeport diplomatique yi nga xamante ni moom lañ lay tuumaal ba ca jiitu mooy nga daal di dem porter ji plainte na mu gën a gaawee ndax benn doomu aadama ma amul droit di filmer wala ngay enregistrer nit te yóbbu ko maanaam boo defee loolu bu buñ la ci yóbboo prison di nga am loo xamante ni di nga ko waxta mu set wecc ndax kenn amuñ droit di filmer nit à son insu wala nga koy enregistrer ci loo xamante ni yóbbu ko loolu yoon da koy bañ te am na sax loi boo xamante ni euh, wax na ci waaye yemul foofu kii nii di kilifa tamit mi ngi koy yëgalaat nga daal nga garder sa sang froid bu fekkante ni lu lëndëm la wala lu leer la nga teg ko ci loxol yoon incha allah dinañ ko leeral na mu gën a gaawee di ko encourager waat bu baax a baax te naan ko xale nga certes waaye nag nag euh, gis nañu liggéey bu rafet bi nga xamante ni moom ngay def ci réewum Sénégal. ñu daal di ñëw nag ak ki nga xamante ni moom moo di nit dof nit dof tamit daal na ci yëkkati ay kàddu di yëgle ni kilifa freeram la xaritam la léppam la ñëw bokk milieu rab bi nga xamante ni ci la ñu nekk waaye xamalu ko lenn lu bon xamalu ko lenn lu ñaaw li muy wax rek mooy que tàmbale woon nañu débattre ci li nga xamante ni moom moo di troisième mandat bu suñu njiitum réew président Macky Sall jàpp na ni nag lépp lu ñu amal jamono ji ngir détourner latention de Sénégalais la Euh, ci beneen anam yoo xamante ni dafa ñàkk fayda waaye mi ngi naan ko euh, su doon maa yow du ma daanu ci benn pièce na dinaa gën a dal gën a tey ndax man maa sa ginnaaw te gëm naa la ñu ci bari ñoo ngi sa ginnaaw ngir jàppale la def na confiance ki nga xamante ne moom moo di kilifa jox na ko ay conseil mi ngi koy gëmloo ni tamit boo deful nànk di nga daanu ci pièce ca pièce boobu de lendu lulu troisième mandat moom moo waral ñuy jéem a faagaagal képp koo xamante ni rek da nga taxaw ngir euh, gàllankoor la jox na ko soutien jox na ko confiance am waaye tamit encouragé na ko bu baax a baax ci moment difficile yi mu nekk. dañ ko daal di jeexalee rek ak li nga xamante ni moom moo di wàllum làmb gis nañ ni nag jamono ji làmb tagga tembe na lool euh, fa ñu jàppee ni woon xaalam demoon na bay neex foofu la buum nga daal di dogee jamono ji VIP yu bari waroon nañoo am seen combat arène yi doon takkarnaase waaye jàngoro coronavirus nekk loo xamante ni impacté na ko bu euh, baax a baax euh, démb nag gis nañu bi journée bi nga xamante ni moom la Bira Sène ak waa CNG tuggoon fële na la ci diwaanu arène journée boo xamante ne rek dañuy ñëw VIP yi mbër yi promoteurs yi ñëpp bu ñu dikkee ñu daal di jël seen dose de vaccination en attendant ñu xoolagum yan condition la ñuy teg ba mën a ubbi arène bi ñu daal di amal combat ca na mu waree waaye nag dafa mel ne appel boobee benn VIP teewu fa lu dul ñi nga xamante ni ñoom ñoo di mbëri ndaw yi nekk ci arène bi ñoom ñëw nañu jël seen dose ñenn ci promoteur yi tamit daal dina ñuy ñëw jël seen dose Bombardier moom justifié na li nga xamante ni moom moo di absence am ndax daal dina jël doosam ba pare ginnaaw ba mu waree amal combat MMA fële na la ca diwaanu Europe Balla Gaye 2 tamit jëloon na dose am bu yàgg-yàgg ndax dafa mel ni kon buñ naan VIP yi teewuñu fa mën nañ cee cité ku ci mel ni euh, Modou Lo Lac de Guiers 2 Eumeu Sène ak keneen ak keneen en tout cas lu wéttu woon tey jii ñoo ngi doon xaare ni ba xam dinañ fa teew am déet démb nag euh, jëloon nañu seen téléphone woote ñenn ñi doon wax naan heure bi la ñuy ñëw waaye ba ni journée bi jeexee gisuñu fa kenn alors que dañoo bëgg a trouver solution pour que ñu mën a amalaat li nga xamante ni moom moo di combat de lutte mbokk yi dafa mel ni li lañ leen indiloon seen xibaaru Actunet jaajëfal leen yéen ñëpp jox leen dig daje ba suba ak jàmm incha allah jërë ngeen jëf.